ngir ngeen di jot suñu vidéo nag foo leen toll ci biir réew mi wala bitim réew da di abonné fii ci Farokh TV ngir mën a jot mbooleem vidéo boo xam ne dugal nañu ko ngir mën a xam mbooleem loo xam ne dina xew fii ci biir réew wala bitim réew. foo ñu dem ci réew yi fekk fay ni ndaw ñooñu njiit la ñuy nekk xaañe tam salal muslimin ala mustafa taalibe yi na ngeen jóg si li leen taray ay melo ñaqal leen sëriñ bi liggéey xam gërëm salal muslimin halal mustafa imaamul baay semaam jar ba yàlla bette ruubu yëpp teew daw ba toppoon yëmin bi nekk ak sayem salal muslimin halal mustafa imaamul baay na ngeen jóg si li leen taray ay melo ndaw ñaqal leen sëriñ bi liggéey xam gërëm salal muslimin sëriñ la kawe ay meloom ñaqal leen sëriñ liggéey am gërëm salal muslimin alal mustafa imam al baraya ture yaa kaxaakoon na ngeen lay niyoon man ko ngam gu noon tey la hubbeem salal muslimin alal mustafa imam al baraya bayne ture yaa kaxaakoon na ngeen lay niyoon man ko ngam gu noon tey la hubbeem salal muslimin alal mustafa nga nekk taw ci moom taw boo ko nit ñu gis ko xam na cër ci moom salal muslimina alal mustafa imaamil baraay waaye nag mooy ko xàlli yoon wax ba nekkoon nga ne ba ko toll seen ko xemem dem ca moom salal muslimin alal mustafa imaamul baraay mu ko fekk jaamal ci moom yi doo Seyre Aliou Mbodji Cissé kenn du gis ci gox yi kuñ ne mooy kemam salal muslimin alal Mustafa imaamil baraaya mbay mi jurut doomi jaay amul doomi am ndaw turam moo ko xam ne am nañ seen borom salal muslimin alal Mustafa imaamil baraaya mbay mi jurut doomi jaay amul doomi am ndaw turam moo ko xam ne am nañ seen borom salal muslimin alal Mustafa saxiira bay ne koo demul gisul ci téere daf bidaa ka waxoon mu leen mu taxam léegi kam salal muslimina alal mustafa imaamil baraya man ko fekk daaw faatir biya ànd ak moom si yàlla ba kay ma biram salal muslimina alal mustafa imaamil baraya may na man ko fekk daaru xalaatir bi yàllaw ànd ak moom si ma gërëm salal muslimin alal mustafa imamil baraya jaraw kon ma woowe su biir jàkka jambay su turtóor du fay fi ba yowmal xiyaam ngir ngeen di jot suñu vidéo nag foo leen toll ci biir réew mi wala bitim réew da di abonné fii ci Farokh TV ngir mën a jot mbooleem vidéo boo xam ne dugal nañu ko ngir mën a xam mbooleem loo xam ne dina xew fii ci biir réew mi wala bitim réew